Bienvenue sur Salam Vision. libération xëy ñëwaat ci tiis wa woon ca l'hôpital Magatte Lô ca Linguère ak lakk gu fa faat juróomi liir yu tooy xepp di liir yu matul woon nekkoon ci couveuse yéenekaay bi ne enquête bi ñamu joxoñ mooy personnel ba fa nekkoon de di ci jamonoy jéey ji ndax nag bi lakk gi am relève ba dañu waroon wuutu seeni naatangoo kenn gisu leen woon ak i gët yéenekaay bi ne ay daan ci seen wàllum liggéey nag moom munta ñàkk fileeg ak topp wala déet ci wàllu yoon ci source a nijaay kuñ naan Maymuna Saw ñàkk ca liiram bu jigéen di ci yàq lu ne waa l'hôpital ba moom Ada la mu ca wax mooy amul woon benn agent bu ay garde rax ci dolli saal yi ñu ne ko ràpp tëj ca kaw gune moo waral ñu daal di asphyxier maanaam xëj Ada Kambel ne bu fu fekkoon ab garde sax mu mën a jëfandikoo extincteur ba di jumtukaay yooyu ñuy faye lakk ngir dakkal mbir ma source a ci weneen wàll ne démb gendarmerie Linguère déglu na chef maintenance hôpital ba waaye nee na lakk gi moom jógeewul ci court-circuit ba tey ci wàll woowee ak tiis ba ca Linguère laas ñu ne bilan bi gën na diis ndax ñaari liir yéenu rawale woon ca Matlabul Fawzeyni ca Touba Mbacké mujj na ñoom it faatu muy kon juróom-benn ñu ci génn àddina ci hôpital bu Ziguinchor la ñuy des ak laas yéenekaay bi ne foofee liggéeykat yay tàmbali ab grève tey jii grève ñett ci fan urgence ak service minimum rek la ñuy def ñu ne li waral nag seenug mer ñàkkum jumtukaay ca la ci hôpital ba ñàkkum ñu ne spécialiste jafe-jafe ngir liggéeykat yi tardi mi ñeel payoor yi ak yeneen dañu des ak wàllu wérgu yaram ak le témoin mi waxtaanee liggéeykat yi kër docteur yi faral di lankal kilifa yi affecté guñ leen di affecté ci kaw gi ak lank gi ci boppam jëm ci wàllu affecté gi ni mu sooxeelee paju mi ci Sénégal gi di ñetti gynécologue yi lànkoon a dem liggéey Kolda laaj bi yéenekaay bi def nag ngir ak pencoo mooy ndax ab médecin bu état bi jël sañ na lànk affecté am fenn ci goxi réew mi ñenn ci docteur ci yéenekaay bi leeral ne yëf yi du ak lànk de waaye nag lanuy ñaawlu mooy ñàkk jumtukaay ci paju mi ñeel gox yenn ci Sénégal nga nekk léeg-léeg benn spécialiste ci goxab lëmm di liggéey 7 jours sur 7 doo am keneen ku la jàppale ca nag buñ la fa affecté fàtte la fa bëgg fa dalay te wit ba yëf yi mujj ci démission ak yeneen faaw ñu ne kon affecté yi di ànd sawarloo nit ki docteur Amadou Sow médecin légiste la moom ba tey ak le témoin la mu gis mooy faw ñu daal di yeesal réformer système spécialisation ci réew mi maanaam di recruter médecin bi ci buy tàmbali rek spécialisation ngir mu bañ di am lay ak yeneen di lànk bu nu ko yóbboo ci région bi wala muy dem bitim réew ak yeneen docteur saw di leeral nag ne ministère de la sante cote moo am sañ-sañu njoxem ndigal ci ki bëgg a fajee ci wàllu privé ordre de médecins mu ne xalaat rek lay joxe di avis leneen lu amagul saafara su weesoo jafe-jafe affecté ñeer spécialiste yi anam yu dëppoowul ak yoon Le Quotidien ne méttit wu amagul saafara la dëgg ndax nag ginnaaw li ñu sisiroon ca padd waa week-end bi douane bu Sénégal tegaat na loxo yeneeni garab yu bon li Quotidien ne douane bi moo defati kay ak manoore ak sisiiram drogue ak garab yu bon la tribune ne valeur u fanweer ak juróom-ñetti million la dañuy des ak la tribune ci boppam mi xëy di wër ñu ne ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi Serigne Mbaye Thiam ndax dañu ne dañu mes jamono yu ñàkkum ndox di law ci gox yenn ci Sénégal wàllu mbalit mi moom ak yorin wi leerali ministre Ablaye Sow ak xibaar yi doon laam-laamee ni dañ ko bëgg a dénk ay Sri Lankais ci les échos jëwriñ ji ne dara jotaliwu ko ak waa Sri Lanka ca nag li leer mooy mbalit mi moom kenn du ko joxab société bitim réew Mass Thiam jiital UCG ci yéenekaay bi di xamle ni société bu bees bay ñëw ñeel wàllu yorinu mbalit mi état bu Sénégal moo ci ëppi cër ak collectivité territoriale yi ñu des ak les échos mi dalal tey Adama fay rakk la bu soxna Marième Faye Sall première dame bu Sénégal xalaat bi mu am moom Adama Faye ci wàllu wërëm weer gi ak réero yi ci jamonoy koor saa su ne mooy ñu tas benn CONACOC maanaam kuréel gi dénk ceenum weer wi bennoo mu ne ñoom ñëpp nag ministère intérieur boole leen yilif bu ko defee di génne ay arrêté ñu umandoor di woorandoor goro boobu président Macky du sax xëy na weer weeku ëlëm jamono yi waaye ci wàllu politique Mimi ABC maanaam soxna Aminata Touré Alioune Badara Cissé observateur ko xëyee ne ku jooraw xeer rek jox sa morom yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne guerre positionnement baa tàmbali Sud Quotidien moom njeexite yi watey gox goxaan am ci watey yi la xëyee tey di ko jàngatandoor ak UTB ak Serigne Thiam enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Ndakaaru local Sud Quotidien jàppee ko ay primaire maanaam cegg gi laata lamb mag ji Le Soleil ci wàllu koom-koom la xëy tey moom dem ca xolu Casamance ca dëkk buñ naan caax yéene kaay bi ne muy ci arrondissement Diouloulung di ca Sindian l'armée bi raxas na foofu fépp tàqale askan wa ak trafiquant yamba yëf woon ak wàllu ëkk garab yi muy dëkk bi di Mongoon Boussonor Bolonguir ne maa jinaare ak bindkat bu mag ràññiku lool macha allah ci Sénégal soxna Aminata Sow Fall di màggal juróom ñett fukki atam tey seede yi tukkee fu ne ci Le Témoin dale ko ci Souleymane Bachir Diagne Louis Camara Nafissatou Dia Diouf Rahmatou Seck Somb Adi Anne Moustapha Tambadou Mariama Ndoye colonel Moumar Gueye Fama Diagne Sène ba ci Abdoulaye Racine Senghor ñépp ànd maase ci xereñ gi ñeel soxna si macha allah kàggu mu am solo bi mu doon ci wàllu mbindu ak taxawaay gi nepp soxna ci pénc mi joyeux anniversaire grande dame ni koy naata ngoom binde ci yéenekaay bi ñi ña des la dame en majuscule la référence waaye yow ministre ndox mi la anamu Serigne Mbaye Thiam tribune yéene kaa ne en mi day waaw ndox moom doom bu góor la fii amul te ñàkkum ndox moomee nag mi ngi gën a tar ba seen o ñëwee maar day taali waaw te moo ni day dañ ne woon seen o nag bu remplacé kon SDE mbir mi kon dana réglé furaas daal di xidéen ay quartier yu bëree bëri ci Ndakaaru njaajël joob gi la dama ne la doom bu góor la fa ñaari tali amul ndox Kër Massar amul ndox Cité d'Amel gi ne la ñu jaaxal nag mooy ministre Mbaye Thiam ministre ndox ah dane pat kenn dégg ko mu wax laa la wax Serigne Mbaye Thiam kaay wuyu ana foo ne ca jamono jooje nga xam ne ne ndoxoon doom bu góor la ci réew mi ne waaw wàllu wér-gu-yaram gi tamit nit ñu sonn nañu lool laa la wax vox populi ne ñaari bébé yi nga xam ni kon ñoom ñoo rëccoon ca lakk ga day ca hôpital Magatte Lô ca Linguère waaw ñaari liir ya mujj nañoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la bébé yi dee léegi kon toll na ci juróom benn laa la wax libération ñoom ñoo dee ca diwaanu Linguère day waaw enquête ba personnel de garde waa kër la jambaaraamu tuuma de ña xam ne ñoo waroon a remplacer ña wàcc di relève ba balak ngay door ndekete nekkuñu fa woon allahu akbar may mën a saw mi lée doomam bokk ca ña nga xam ne kon ñoo fa faatu day nijaayam aada kambeel ci source a waaw nee amul woon benn agent de garde laa la wax te saal ya ca boppam kon dañ leen noo tëjoon ba mu ne raaf ngelaw amul fu mu lu leen raya dañoo fat allahu akbar bébé dañoo fas yéeni kaay daaw da càmmi ne jàpp directeur hôpital ba day ak chef de service pédiatrie ba waaw gendarmerie dégloogu leen dee waaw lu tax looloo jaaxal gaaña te jamono jooyee xam ne nag hôpital yee ngi rey nit ñi le yi nga xam ne kon dañ leen di affecté kon ca kaw ga ñu lànk ne duñ lii lan la moo jaaxal ñëpp te gis nga affectation yooyee lay gaañ dem kër docteur bokk na ca de dëgg la mais xoolal ma ñetti gynécologue yi nga xam ne kon dañ leen jaaxal na nit ñi te jamono joojee nit ñi dee ci l'hôpital yi waaw terminé yéene kaay nee na am na ay garab yoo xam ne day diwaan ba tegati na ko loxo de te boo ko xaymaa toll na ci fanweer ak juróom-ñett ci ay millions laa la wax laa ilaha illallah le quotidien yéene kaay ne trafic faux médicament yooyee waaw lii miti la te mënuñu koo faj réew mi quotidien ne dama ne la gis nga ci ñetti at yi waaw li ñu jàpp ci ay garab yi bon day boo ko xaymaa toll na ci ñaari milliards laa ilaha illallah laa ilaha illallah ay lii fan lañ koy naanee 24 heures yéene kaay ne gis nga xeex nag ak garab yu bon yooyee faux médicament yi waaw ak yamba jeeg plastique ak yooyu ah douane bi daal mooy seef mi ci boppam moo amul xëy amul liggéey box foofu di ne ñi nga xam ne dañoo yor ay lijaas sa day te amuñu xëy waaw ginnaaw ndaje mi nga xam ne président Macky Sall doon na ko amal day conseil présidentiel ba waaw nee nañ président Macky Sall kaay wuyu xëyu ndaw yi nga ne di ci def lu tolloo ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards te tamit lu ci tolloo juróom benn fukki junni ak juróom ci ay doomu aadama danañ ci am yi nga xam ne day dañoo li jaasa te amuñu liggéey nee nañ président Macky Sall ah ngin dey keroog ba ngay woote ngir wutal ko nay xëy dañoo xañ kaddu joxuñ ñu parole waaye garaawul danañ la dénk nag lu tolloo fukk ak ñett ci ay ndénkaane te gis nga monsieur président Macky dañoo bëgg nga ubbi nag say bët ci yenn ci ay jafe-jafe monsieur président Macky xoolal ma ñi nga xam ne dañoo retraité continuer am ay contrat spéciaux te ndaw yaa ngi ni lée yor ay lijaasa toog monsieur le président Macky Sall ngin ñi nga xam ne dañoo yor ay lijaasa di ay na ñoo xam ne ñaari liggéey la ñu nekk tamit ca public ba rawatina jàngalekat yi lée ak ñi nekk ci waa kër docteur te ndaw yaa ngi nii ne ci mbedd mi di taxawaalu monsieur le président Macky Sall xoolal stagiaire yi nekk ci bërëb defal lu tolloo juróomi atu yàlla te wuñ la monsieur le président Macky Sall ay doctorant ak ay chercheur maanaam ay borom xam-xam waaw yor ay bourse yoo xam ni day ay bourse xuusma ñàpp duñ sax mën a yeggali seenu liggéey na mu ware te monsieur le président yi nga xam ni kon li muy jar daa seer lool bàyyiwuñ financement yi yi monsieur le président Macky lu ci tollo ñaar fukk ak ñaar ci ay notaire yoo xam ni concours 2013 la ñu def pare nañu seen formation 2017 ba léegi ni ne France daal di xideen ñi ngi sommé ba tey waa lii te monsieur le président ñun xale yi nga xam ne dañoo te amuñu xëy sans emploi ñoo lay xamal ne day gis nga nguur gi la recrutement fonction publique bi moom waaw dañ koo jagleel les bokk ci parti bi jege ñaale ministre bi clientèle toll ci juróom benn téeméer ñoo gën a bëri avocat yi xam ni kon ñeenti téeméer la ilaha illallah tribune yéene kaay ne moo tax it Macky Sall fa muy mujjee ak activiste yi lée waaw du neex de déedéet cri di yéene kaay ne waaye yi ba léegi ni leen libéré guñ leen dee ci événement wu mars yo toll nañ ci fanweer ci ay doomu adama yoo xam ne ba léegi ne ñu ngi ci biir kaso bi laa la wax réew mi quotidien ne gis nga boo bëggee dégg dëgg waaw lii xeeñ nii ci de fekk na kii di président Ousmane Sonko di yëglu ak tamit teg ca ci dossier bi bay laaj ay sàkkute ah te boo xoolee kaddu yi nga xam ne moom la maître El Hadj Diouf yëkkati kaddu yi nga xam ne moom la Mame Mbaye Niang yëkkati waaw dama ne la kenn fa séene wu la bàyyi laa la wax ñu ne déet ni waaye waa M2D jàpp na Macky Sall mi lée war na kaddu gi xam ne kon moom la joxoon Serigne Mountakha moo tax gis nga lii di xeeñ nii deuxième vague lay xeeñ de mar day taali mar day waaw la dëgg la boole ca Moustapha Cissé Lo gis nga élection locale yi ci kaw élection député ba ca sax présidentielle ya ah lii ay primaire la de wallaay bu ñu neexee ñu jàpp ne ay sondage la local yi lée Ibou Sané bu leen jàpp ne manifestation yi ñu génn ni le rek wane na ne Macky Sall daanu na de jéet jéet parce ndaw yee doon yëngal-yëngal mais ndaw yu bëree bëri du ñu voté professeur Serigne Thiam waaw nee xaw ma ban jamono de waaye jamono ji buñ rëy ca diwaanu Thiès affaire waaw ma nga yënga-yëngal de réussir na pari de la mobilisation ba dee ah waaw Faly Seck day ci direct news ah ci lu jëm na ca wàllum la day ngir ñu jéem a soxali seen gox boobee looloy dëgg yéeni kaay ba jogay fay bi ne ministre intérieur di Antoine Diome day ah altine day mu jëlee xalif na toñoo mi Lo day ak Ama Baldé waaw ko ba léegi la day loolu tam xam nga beneen mbir la wulañ ni laay war a jóg dem naa ca football ba Boubacar David Sonko ne Madi Touré day waaye kii mooy bonne nouvelle pour footballu Sénégal bi la <laughs> non quatrième mandat wu Augustin Senghor bii ba léegi gaw ma ne dëgg la lii dëgg kay mooy suñu pétrole bi mënuñu koo fàtte de moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal